fi leen amee internet yi ñuy bàyyi xel si différentes plateformes yi tey nag gis ngeen ne moom la distribution de ndogu xam ne moom la actrices yi ak célébrité yi nga xam ne ñoo bokk ci Sénégal di def liggéey bu am solo di ko def di partagé ci nga xam ne ñoo ko soxla ndax weeru koor dafa nekk weer boo xam ne yàlla la waaye nag suñu ñëw nii ñi xam ne ñoo bokk ay doomu nday xàccandoo dóorandoo bokk ci association ci def li nga xam ne mooy xeex ci bërëm dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk xale yi ñoom nekk ñu toog ci dañuy joxe ndogu day ah, fii ci Dakar woote na ci rond-point yëpp ñu tooga nii Dieynaba Baldé xam ne nañ ko bu baax ci Sénégal mu doon artiste def liggéey bu am solo ci milieu showbiz Dieynaba maa ngi baax bu baax a baax ak di la aussi bu baax ngeen def ay services yu mm. wax loolu xam ne ci ndimbal lay dox waaye rawatina waaw euh, comme li ma lay wax rek euh, mbooloo mooy doole te ñoom bébés yi dañoo nekk nit ñoo xamante ne samay sœur lañ dañoo déggoo te nit ñu baax lañu wax dëgg nañ yàlla muy bébé di kumba di kiyaa donc ñu toog benn jour di waxtaan ñu ne pourquoi pas ñu créer benn groupe boo xamante ne ñun ñii nii di ànd créer bi dimbali nit ñi parce que nit ñi dañu am xolu dimbali nit ñi te bëgg nañ jëlee li fi ne ci réew mi mais donte amuñu doole bu baax ñu créer ko yàlla def ñu réussir ko mois de décembre ñu def ko koor ñëw mooy mois bi nga xamante moo gën a sacré defe naa ci mois yi ci jullit li ñu am te pourquoi pas ñu def social aussi donc moo waral lii quoi li li li ko waral mooy da ngeen a doon ay xarit. Uh-huh. ak seen bopp yoo xam ne boo xam ne moo tax ngeen def li ñu mel. bu uh, ngeen jógee ci lii ci lan ngeen doon ndax joxe ci weeru koor waaw bu ñu jógee dañuy defar ñu ngi defar ñu instant yi bu ñu paree dañuy dem rond point jox jàmm yàlla ñi nga xamante ne ndogu fekk na leen ci yoon te amuñu lu ñu ndogoo. dëgg na yàlla mais lii du yem fii en fait def nañ ko décembre def ko koor yeneen ak yeneen yeneen ni dina ñëw incha allah yàlla ñu yàlla may doole fekk ak àll ak waaw comme li nga wax sànq rek xam nga dimbali jàppale di joxe mhm. est-ce que yomboon na li ngeen teg parce que ànd jigéen yomb gis nañ ñu bëri dañ ciy def ay lu koy tas waaw boo xoolee ñun ñëpp ñuy ànd âge wute na ñun ñëpp dañoo magante lu bari bari bari bari defe naa loolu moo tax ñu mën a am te ñu fi nekk yëpp ay yaay leen te defe naa boo xasee ba nekk yaay dina am benn comportement di nga am benn maturité bi ngay am en fait donc bii ko tamit dimbali moo ñu tax a jug di jàppale néew di doole moo tax mënuñu xuloo parce que lii bu jeexee après ku ci nekk da ngay. ngeen jógee ci lii ci lan ngeen doon ndax buñ jugee dañuy defar ñu ngi defar ni instant yi bu ñu paree dañuy dem rond point Yoff distribuer ko jox jaamu yàlla ñi nga xamante ne ndogu fekk na leen ci yoon te amuñu lu ñu ndogoo wax dëgg na yàlla mais lii du yem fii en fait def nañ ko décembre def ko koor yeneen ak yeneen yeneen ni dina ñëw incha allah yàlla ñu yàlla may doole fekki ak tal rek waaw comme li nga wax sànq rek xam nga dimbali jàppale di joxe Mmh. est-ce que yomboon na parce que ànd jigéen yombul gis nañ ñu souvent lu koy tas tey yomb waaw boo xoolee ñun ñëpp ñi ànd âge yu wute na ñun ñëpp dañoo magante lu bari bari bari bari defe naa loolu moo tax ñu mën a ànd te ñu fi nekk yëpp ay yaay lañ te defe naa boo xasee ba nekk yaay dina am benn comportement di nga ko am benn maturité bi ngay am en fait donc vu que tamit dimbali moo ñu tax a jug di jàppale néew di doole moo tax mënuñu xuloo parce que lii bu jeexee après ku ci nekk da ngay dellu sa éducation ànduñu quoi. Euh, li baax kilifa yi jàpp ci rawatina. waaw état euh, wax rek comme genre nit yu mel nii social yombul ndax alal ci xol la sax donc nañ ñu jéem a jàppale am ay structure yu ñu teg wala ay affaires yoo xamante ne ñun tey su bëggee def yu mel nii dañuy dem foofu noonu par exemple déposer suñu lettre. ñu financé ñu ñu mën a dolli ci loolu noonu plus lu ñu am pour mën a def lu ñu bëgg a def te mm-hmm. defe naa président bu bees bu dina ko def mm-hmm. mm-hmm. macha allah ñu nekkoon ci période bu tàngee élection mais li nga xam ne ñëpp sax tiitoon nañ may jàmm am na yow nga jël say propre responsabilité sa action bu génnee son si métti woon na kay parce que man bëri naa ak ay connaissance yoo xamante ni ci parti beneen bi lañ nekk donc ñoom ñëpp yónnee nañ ma ay message wax ma ci n'importe quoi. Ah mais comme li ma lay wax rek bien sûr. wax comme li ma la wax parce que am nañu bëri yaakaaruñu woon ne lii dina aboutir quoi. pour wax dëgg ndax bett na leen bett boo xamante ni. mënuñu ko woon yaakaar ko ñi ñu ñu ma doon na yàq sa carrière def nga lii def nga laa def nga lii mais comme man tey son bi bi ma koy def tàgguma ci kenn en fait dama ko def parce que dama ko sentir def aw ma ci woon benn regret te man gëmoon naa ne lii dinañ ci génn ak jàmm. Mm-hmm. bi ñu koy def amul lum la yàqal boobu bi nga xam ne parti au pouvoir non à part yàqalu te man gëmoon naa ne lii dinañ ci génn ak jàmm. Mm-hmm. bi ñu koy def amul lum la yàqal boobu bi nga xam ne parti au à part ma dara yàkkaluma dara à part mere mere woon nañ ma mais xam naa dinañ jiif parce que xam nañu kii moo baax. <laughs> lan moo la motiver ba nga woy ñi nga xam ne ñooy patriote rawatina Ousmane Sonko waaw comme man tey artiste laa te am naa sama voix peut-être tey su ma amee mënuma fëgg bunt yëpp wax ak nit ñi mais tey su ma defee son ñëpp dinañ ma déglu te xam ne lii kii li muy wax ni ci xol la jóge donc bi ñu libéré président Ousmane Sonko ak Diomaye dama kontaanoon trop trop trop may suivre affaire yi yéen maa ngi leen si seen page laa ko doon seetaanee donc ma kontaan ma ne tey mënumaa tëdd si lal te defuma dara. waaju ma ko ma dugg studio Bril defar son bi ñu defar son bi enregistré ko ñu xëy laa ne la génnee retour bi lan nga am ci côté mbégte ci woy bi am nañ ay retours yu positif franchement patriotique fépp fu nit nekk ci àdduna bi woo nga ma téléphone message yu ma répondre lu sax mu ëpp man tey yu ma répondre kontaan président kontaan ñoom ñaan ñëpp wax dëgg fa yàlla kontaan nañ trop trop. Ah, gis nga tey passation de service nga xam ne le président de la République le président sortant di Macky Sall ah, defal na ko ki xam ne mooy son excellence Diomaye Faye naka ah, nga gisee mbir moomu tey nag Sénégal ñëpp sax dañoo kontaan. man maa ngi fa woon di kontaan trop trop trop trop trop wax dëgg neex yàlla parce que àdduna tamit nii la xam nga tey yàlla dogal na ne moom nekk na fi ba tempsam jeex na waaw accueillir nañ suñu nouveau président bi nga xamante ne xale la di koy ñaan yàlla yàlla mooy ko gudd fan ak wér gu yaram donc mënuñu lu dul kontaan parce que lu dul jàmm jàmm ko gën mu mel ni kon yow patriote nga ndax boo demee ba dem bu baax patriote bu baax la. Ah mhm. bu baax. Mhm. Mhm. Ah, waaw président Ousmane Sonko ah, dëgg bi mu doon xeex rek. non non non non non dëgg bi mu xeex. li mu doon xeexal Sénégal te xam naa ne am na am xam si dañ ko doon jaay doole di ko xokkatal di ko def ay affaire yoo xamante ne nit sax am na loo xam ne xajul ci nit teewul bàyyiwul mu muñ su ko neexoon du ko def. parce que liggéey na ay bërëb yu bëri yoo xamante ni su ko neexoon mu defaru fa mu jàpp ñaamuram mais defu ko dafa dafa dafa xeex ñu koy dóor dafa xeex. lii tax nga moom mooy da nga gis ne yaa ngi euh, am xel tey xel ñaar mais peut-être Ousmane ak Diomaye am si ñoom parce que nee nañu Ousmane dafa teg bët bi Diomaye nii Diomaye laa Ousmane moo wax ñu wax. ñuy wax loolu yëpp noonu lañ mel xam nga am na moom am na noo xam ne boo melee noonu rek yow da nga yaakaar loo gis noonu lay mel jo som Diomaye ku ko gis xam na ni dafa fànn Sonko daf koo bëgg moom et c'est très normal Sonko di ko accompagner parce que Sonko fépp fu mu daan dem Diomaye da ko doon accompagner te tey buñ fi tegee président Diomaye Sonko moo tax est-ce comprendre nga te projet bi la projet bi lay continuer te Ousmane Sonko moom lii lii nii moo ko gënal le fait que Diomaye falu nii moo ko gënal ndax dina ko may temps moom mu mun a préparer bu baax a baax bu ñëwaat mu xam li muy na ñiy wax loolu noonu parce que kii du workat bu fekkee workat la woon du ko tànn ñoom euh, Guy Marius Sagna ñu ngi woon fii ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ko doon xeexal mu bàyyi leen fal jom choisir jomaay moom moo ko xam. waaw mais bi ñu déggee yenn patriotes yi lu ci mel ni activiste wala influenceurs yi di saañoo ñenn ñi nga xam ko mën a fàtte tubaab ak di leen tuddee waa toog ñu dox naan na ci artiste yi da ngeen di bëgg lu yomb war nañ ko mën a wax. ah, <laughs> ah <laughs> ci wax <laughs> que artiste samay xarit lañ mënu ma ci wax mais bon. man daal xam naa ni kenn fayu ma man. ok waaw. non man kenn fayu ma man man kenn fayu ma. Mm-hmm. Mm-hmm. sama musique laa am ak samay business. Mm-hmm. ñu fàttalikoo mu ko dañ ci waxtaan laay soog nekk Clédor gis nañ ne papa la maam la ci yow saa baax donte gis nañ ne yàlla sa yoon ay nag ñu taxawal ci sa relation mooy sama papa la Clédor sama papa la mooy sama deuxième papa à ma jur mooy sama deuxième papa ndax daf ma bëgg yërëm ma ba pare xam sama place teg ma sama place kooku dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram ak ay doomam parce que nit ku baax la te dafa am njëriñ man amalu ma man dong jëriñ ci réew mi de ndax ni muy jàppale noonu lañ baree te nit ñi xamuñu ko dafa mérité na ñu delloo ko njukkal mérité na ñu rendre ko hommage bu baax a baax a baax baax parce que nit ku mel ni moom yombul te ku ne gis na li mu li mu def ci affaire bi liggéey na ci quoi ma koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram bu man mii li ne sama xol ma mën ko def ci man parce que def ci man. macha allah li ñu tëjee nag mooy yow ñoo xam ne ñoo yëngatu mm. nekk. bien sûr waajal ay affaires yu yoo xam ne ku ci nekk en ci quatorze régions yi dinañ fa jéem a dem. pour xool luñ ci mën a def surtout man Kolda bi ma def comme li nga wax di ko ndamoo di ko tiitaroo mais salminawoon ko moƴƴi wonaa seeɗa min ɗiɗo merci. non non non man je suis pas d'accord parce que man moom man moom man moom non non non attention non non non non non non mënoo gëm mënoo gëm laa comprendre non non non non mais mais ku ci nekk non ku ci nekk ak li la yàlla jag kii nii euh, parce que moom loolu la ko yàlla jagleel yàlla dimbali na ko mu mu am ñaari jabar mais mais man si ñëw ma lool mukk dama fiir wala maa dof merci Voilà. fii da ko dem euh, nettoyer. ah. amaat baax. Thank you. est ce que duñ ci def utaale mbuus yu cent franc yi tamit. waaw def si kii bi. waaw mooy gën nag am na lu ci def yow ñaata sa nga am na mais ceeb bi jeex na suukar bi. mooy gën a sakkan. suukar bi des na.

musuma la tibbee yaa ma ko gënal fuuf man yow laa bëgg de man yow. lii rek a si des ah. damay indiwaat foofu kóor bi boobu moom ak son. ah. non non. <laughs> yow am na yow am na yu des pourtant am na yu des rek. mais fii suñu monsieur dafa jeex. oui xale góor yi. waaw. ah. ma jox la. accéléré accéléré. yow a gën a kii. man yow laa bëri. lii rek la si des ah. damay indiwaat foofu kóob bi boobu moom ak son. ah ci même bu non non yeneen yi. xale góor yi <laughs> yow am na yow am na yow waaw am na kii amul am na yu des pour am na yu des rek. nee na kii kii monsieur dafa jeex. oui ñu laa bëgg ngeen yóbbu ma ci tur waaw. waaw xale góor yi. Amidou yow Amidou waaw. bébé Fa sañ la ñun dañuy xaar xaaral ba pare jiwu pare. non ñoo ñoo lañuy dem. yango kon de du doon confort parce que ñoom dañuy. génne leen moom. ñaari paquet. mais man sama adresse yu yàngoo dafa dee rek. moom laa ko Dafa apandi ñëw bu ma benn kaas dafa manqué voilà kaas. waaw léegi xam nga yéen a ngi dégg am na. am na yeneen kaas yi. aywa kaas nañu ko. yeneen kaas nekkul seen ginnaaw. Mawla kii joxe café nag kii joxe café. foofu kaas man non.

moom it bokk na ci membre Helping Children ñu fekk ko ci rond point Yoff ñu doon joxe ndogu bébé maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak yi. maa ngi lay fay euh, di nuyu suñu bokk sénégalais yi di leen sant di leen ziar di leen baalu ci weeru koor gi. même Helping Children ngeen woote quoi. waaw Helping Children ci bëgg. Helping Children nag euh, wuyu na turam mais dafa yaatu parce que à la dañoo jugoon pour euh, jàppale xale yi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw wala gisuñu waajur gisuñu ku leen jàppale ils sont pas ñi nga xamante ne ils sont pas épanouis donc loolu moo nekkoon euh, concept bi ba tey jii ku ne xam nañ dañu nekk si weeru koor donc ñu am suñu association ñu ne duñ ko yemale si xale yi kese weeru koor gi ku ne xam na ni am na ñoo xam ni dog ci mbedd bi la lay fekk ndax embouteillage yi ak euh, les aléas de la de la vie donc am ñoo xamante ne liggéey moo leen nekk mooy mooy tax ñu nekk si mbedd bi donc am ñoo xamante ne tamit ñi ngi ci mbedd yi tax amuñu lu ñu ndogoo donc tey ñooñ ñooñ ñëpp lañ dajale euh, pour jàppale leen malgré que mënuñu def lépp sax mais ñu def li nga xamante ne nii moom lañ mën ak di tolloog suñu doole. donc association bi weeru koor di def yeneen activité waaw hormis activité parce que bëri na ay affaire sax yoo xamante ne tamit ñu ngi koy ñu ngi koy def ci suuf mënuñoo matale lépp mais bëri na yoo xamante ne nii ñu ngi koy liggéey ci suuf. maa ngi leen di fay di leen ziyaar ci koor gi di leen baalu àq di baalu àq sénégalais yëpp nii ah lu ngi baax ok alors daaw ñu ngi la fekkoon Kër Massar def ren nga bokk ci association bi di Helping Children donc da nga ñuy wax rek lan nga lan nga yëg ci association bi ak ngeen ko créé ba léegi nii euh, naka ngeen ciy doxee pour affaire Jean tout d'abord association bii nii ak boobu du benn parce que boobu Tim Kumba famille la ñoom ñoo créé woon Kër Massar bii nag helping children la comme ni ko bébé waxee ak euh, lu mu tudda ci Mimi voilà association la boo xamante ni dañu jug pour jàppale xale yi mais nag comme weeru koor dafa jot te xale yi si lañu bokk itamit dañuy def acte social rek. sànq wax naa ko jëlee seen fonds yi kan moo leen jàppale est-ce que am ngeen am ngeen tuuti am bu mag ngeen am ci réseau yi est-ce genre waaw am na ay sponsor mais tout d'abord yàlla moo ñuy jàppaleel boppam ndax bi ñuy débuté amuñu dara ba nii nii bii bi ñu koy def suñu xaalisu bopp la ñu génne en fait ba nii nii bi nu koy def suñu xaalisu bopp la ñu génne voilà donc am na nu aussi ñoo xamante ni jàpp nañ si comme au Kayar jàpp na ci ci ci ci ndogu bii nii ak chef moi chef moi traiteur jàpp na si man je suis apolitique mais sénégalais yi laa faral suñu bëggee rek damay ànd ak ñoom ci mbégte bi. alors alors awma loolu ma ci wax parce que sama vie privée la. chercher le mal pour loolu duma si tontu. kon daaw waxoon ko buntu yi tëju. yéen man maa leen wax buntu yi dafa tëju. Ah, yéen maa ay buntu dafa tëju wala dafa ubbeeku. et que am na yeneen projet yu ñëw ci kanam incha allah xaar leen c' est nag du chaque jour da nga war di jouer rek bu yàggee da ngay lambal sa image en fait. Ebel Pro man fa laa dëkk man ñooñu sama waa kër lañu. non sama personnage soxlaagun ko ci série yi mais buñ ko ci soxlaa di ngeen ma gis incha allah man Ebel Pro laa dëkk de naka ñëpp xam man Ebel Pro laa bokk man man mburu Ebel Pro laa si seen yi laa génnee. Ebel Pro nga bokk ñu ngi wax naan euh, bété bété ak Babel waa Ebel Pro dañoo ah man loolu leeru ma de. nga ay idée mani loolu leeru ma <laughs> bu leen ma dugal. waaw. Mohamed Alla. <laughs> Mohamed Alla Diop jàngkat. man dafay des rumeurs que nekk en couple ay yow kon loolu yëguma ko woon. kon loolu yëguñu ko yëg nga. <laughs> yaa yëg nga ndeysaan loolu yëguma Mouhamed c'est mon jumeau kooku yàlla moom ma boole ak moom defal naa ko ne da xam nga des fois sénégalais dañuy jàpp lu leen neex kooku yàlla moom a boole ak moom muy sama jumeau man donc foofu rek laa man a yem leneen li si des nag lu waay jàpp loolu yow la maa ngi sant bu baax bu baax jaan jaan jaan jaan instant bi na l'université xam nga sëy yàlla moom moo koy takk mais xam nga sëy yàlla moom moo koy takk bu ko yàlla jeexalee day jeex bu yàlla namaatee nga dugg si tey da nga siy duggaat bu ko yàlla namaatul doo si dugg donc loolu du ay affaire de célébrité wala keneen gis nga fii ku dul célébrité tas tey suba mu am jëkkër loolu yàlla la gis nga ko toog ay ati at te du dégg sax alxayri loolu yàlla la donc lu am rek yàlla la li ma ci waxoon laay waxaat bis bu may bis bu may am jëkkër wala may euh, divorcé wala yooyu noonu nekkul dama leen di woo di leen wax kaay leen yéen peut-être yéenay ñëwal seen bopp pour structurer ay information mais amul leen lu ma ciy wax. d'accord bis bi nga am jëkkër ça veut dire je te dis pas que am naa jëkkër wala aw ma jëkkër waxuma loolu de dama ne. bis bu may am jëkkër. non dama ne bis bu may am jëkkër bu may tas ak bu may am doom loolu yëpp laa waxuma j'ai pas j'ai pas bis bu may am jëkkër voilà lu jëm sama wàllu vie privée en fait je veux dire voilà merci yéen da ngeen